73 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóor rafetlu suñu ànd ak yéen ci biir Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci biir jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk ci gën a fës doore kook njiitum réewum Sénégal ak demam ca Thiès doon feddali kóllëreem digganteem ak ki nga xam ne moom la denk conseil économique social et environnemental waaye doon inauguré li nga xam ne moom moo di ICEPS dañ ko gën a yaatal ci biir xibaar yi la fa jote xew buñ ci noppee dañ ci toftal pat euh, pataaral bu ki ñu dénk biir mi di génn ngir wax ci li jote xew ni ki ajuma bi ñu passé ci projet de loi bi ñu doon wate ci assemblée nationale euh, Sénégal dal dinay ñàkkati kilifa gu mag mu di ki nga xam ne moom moo di euh, Serigne euh, Fallou Serigne Mamor Fallilu Mbacké ibnu Serigne Mouhamadou Fallilu Mbacké moom moo dal di ñàkk bakkanam ni ki démb ci talaata ji ñu wax ci Souleymane Sidi Seck di doom ci euh, Cheikh Yérim Seck mi ñu teg loxo ba mu ngi sous mandat de dépôt ni euh, démb ba léegi ay ojo yu fuite nag yu wane ne euh, moom ak ndaw si dafa amoon consentement daal dina ñuy indi lu ci gën a yaatu mu di ay leeral yoo xam ne yuy firndeel ne yooyu le audio ci atum 2020 la woon ba léegi mbokk yi xarit li li gën a fës ci ponk yi ngeen taaxir lu bàkk bi jàll ñu fam fàcce ko. asalaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo nañu ko junjee ci bopp xibaar yi noonu la ñu koy dooree fam fàcc ak li nga xam ne moom moo di demuk njiitum réewum Sénégal euh, ca Thiès doon inauguré li nga xam ne moom moo di institut euh, supérieur d' enseignement professionnel di ISEPS ba nekk ca Thiès moom nag nañu ko teertoo doon lu mu kontaanee ba noppi wax ci digganteem ak ki nga xam ne moom la dénk conseil économique social et environnemental di Idrissa Seck seen mburoog sow ñoom ñaar nee na lu ko neex la tey yokkal na ko ci Goloria dafay gën a neex rafetlu waa Thiès ak nañu ko euh, terto ñu des ci dem ak euh, njiitum réewum Sénégal ca Thiès euh, bi la yoon nag dafa gën a tar gën a metti ci ginnaaw nervi yi nga xam ne itam caxat caxatee nañu ñenn ci askan wi nga xam ne ñoom d'accord ñu woon ci boobule visite wala ñu doon dox seen doxu ñaxtu ba am na ci ñoo xam ne jot nañu cee jëlee ay gaañu gaañu Antoine Félix Diome di ministre bi ñu dénk wàllum biir réew mi tey ñu gëj ko gis gëj ko dégg mu di kàddu wax ci tolluwaayu réew mi ba ci li am ci àjjuma bi passé ci assemblée nationale mu di projet de loi bi ñu doon wote te kenn déggul mu yëy ci yàbbi mujjee naa génn nag ngir wax ci li nga xam ne moom moo di boobule projet de loi Ngathie moom daf ci ànd ne li nga xam ne moom la ndaw yi Sénégal yi di def mënuñu ko méngaleek lu dul terroriste ndaxte boo demee bay faat nit ndax ay rassemblement ak lu ni mel dañu ko mën a méngale li nga xam ne moom moo di terroriste li nga xam ne moom moo fi amoon ci weeru février jàpp mars ci coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko dootu fi amati ñu fàttaliku ki nga xam ne moom moo di Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké euh, mi fi bàyyeekoo fanweeri fan ci euh, weeru juin ci atum 2010 ci Touba nekkoon juróom-benneelu xalif général kullu murit moom nag bés bi di la 30 juin saa su dellu see rek xel day dem ci ki nga xam ne moom moo di Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké euh, ñu koy ñaanal yàlla suuf gën a oyof ci kawam te taaf ñu ci barkeem njiitum réewum Sénégal ak diggé muy liggéey ak askan wi dal nay wax ci li nga xam ne moom moo di train bi war a jugee Ndakaaru jaldi ba Tambacounda ay kàddoom nag mi ngi ko daal di tënk ci ak demam ca Thiès ginnaaw li nga xam ne moom moo di ICEP ba mu fa doon inauguré kàddu njiitum réewum Sénégal nee na daje na ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay partenaire am di ay canadien ci semaine bi ñu weesu te li nga xam ne moom moo di boobu les projet mi ngi am ay jéego dinañ ci def seen kem kattan ba terrain bi war a wéqee diggante Ndakaaru ak Thiès mën nañu ko taxawal fileek ay weer ca Kédougou accident bu méttee métti moo fa am ba ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan ñaari moto Jakarta yu daje ñoom ñoo dal di nag am accident bu méttee métti ba ñeent ña nga xam ne ñoom ñoom lañu euh, yeboon ca ñaari moto yooyu rek ñoom ñeenti ñëpp dañoo daal di ñàkk seen bakkan mi ngi amee ci diggante Banda Fassi ak fi nga xam ne moom moo di ca keddu Kédougou Cheikh Yérim Seck wax na ci jàppoo ko doomam ji di Souleymane di Seck moom nag dañu ko daal di waxal loo xam ne waxu ko ba tax mu daal di génn def ab post ci Yérim post ngir wax ak ay naataangoom ak askanu Sénégal ngir wax ne li ñu koy tuumal ne euh, ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mi ñuy jiiñ viol te ñu bàyyi ko ci réew mi muy euh, tambambaalu yooyu ci yàb bi du lu mu wax dañ ko ko waxal waxul ci Sonko waxul ci keneen la mu wax rekk mu di delloo xelam ci yàlla te waxul ci leneen lu ay dootu ci wax te du ci mësati wax xanaa lu dul li nga xam ne moom la posté ci yirim post suñu àddu wax ci leneen dem ca Touba dal wax ci génn génnuk àdduna ak sëriñ Mamor falilu Mbacke nu sëriñ Mouhamadou Fallilu Mbacke ay mbok mbokkam na nañu nekk génn na àdduna mu doon na caractère bu dal ci kaw murit yi rawatina ki nga xam ne moom moo di. xalif général kullu murid di sëriñ taxa Basiru mbakke mi ko joxoon li nga xam ne moom moo di ay ndombo yu mu doon eh, ndombol tànk loo xam ne ci la doon liggéey ginnaaw bu mu ko falee woon ci lépp loo xam ne activité relative la mu di administration éducation koranique bi nga xam ne moom moo nekk ci biir Touba yëpp moom moo sëriñ Mamoor lu Mbàkke moom moo ko doon saytu te ci doon amal liggéey bu rafet moom nag génn na àdduna ni ki démb ci talaata ji ñu koy jébbal boromam 2024 di jébbal ak njaalam képp goo xam ne yaa ngi ci réew mi rawatina ñu ñu bokkal yoonu murit màggalu daaru ni ki tey la mu doon màggal goo xam ne itam ki nga xam ne moom moo di maam Thierno di euh, rakk ci Serigne Modou du Mbacké ma moo koy amal ca daaru ak ay magam ak i rakam màggal ga nag ni ki tey la mu doon màggal goo xam ne itam sénégalais yi daal dinañu koy faratal rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay taalibem ba tax na daal tey ca daaru doon màggal goo xam ne gu ñuy sant yàlla la santaale ki nga xam ne moom moo di seen maam di Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ñu des ci daaru màggal gi tey ca Touba ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diop Xaas moom dal dina yëpp ay oto ngir yëpp ci ay wutali ca Touba waaye itam ki nga xam ne moom moo di Fambaye Mbow mi ñu gis mu doon def ab vidéo ci semaine bi passé di woote ngir ànd ak Abdoulaye Diop xaas dem ca màggal daaru dal dinay indi ay leeral mu di kàdduy xaas ñenn ñi ni ñu ko jàppe woon ne mbay dafa wér ba ànd ak xaas mu doon rek li nga xam ne moom moo di lu sénégalais yi doon waxtaane ba waral ni ci ay naataango euh, journaliste yi dem ca Fambaye ngir nag demes demis démasqué ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diop xaas di wax ne dafa doon euh, wax loo xam ne lu amul la waaye xaas dal dinay génn tontu ne Fambaye ñi ngi koy ñaanal yàlla mu wér di ñaan bépp kilifa bu nekk ci réew mi mu ñaanal ko waaye amaana ni ko sénégalais yi waxee woon noonu la ko déggewul euh, mësul xalaat wala mësul ànd ak ki nga xam ne moom Mbaye Mbow ca màggalu daru ñu wax ci li nga xam ne moom moo di agression bu na ba jàlloo mi ñu ne étudiant bi di Khadim juuf moo ko dal di amal ba ñu teg ko loxo mu di ki nga xam ne moom moo di militant bu PDS bi te ñu ne mi ngi réanimation ki nga xam ne moom moo di Khadim Diouf ginnaaw bu mu jano ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di enquêteurs yi indi na ci ay leeral di wax ne ba jàlloo dafa doon jaay boppam ñoom ñaar seenu xamante yàgg na ca jamonoy Médina rue set la ñu xamante woon te li nga xam ne moom la ñu koy euh, jiiñ mu di lii di wàllum agression euh, seen diggante ñoom ñaar am na loo xam ne daal lu ñuy nëbb la lu ñu bëggul mu feeñ Souleymane Sidi Seck di doom euh, ci Cheikh moom doon nëbb feeñ na ci li nga xam ne moom moo di viol ba ñu koy jiiñ ginnaaw audio bi bi ñuy fësal ni kiy démb ba tey ngir firndeel ne moom euh, viol bi ñu koy jiiñ amul li ñu doon def am na consentement maanaam ñoom ñaar la neex boobu boobule ojo nag mi ngi am ci 3 juillet 2020 bi passé ci la ñu génnewaat bi lépp audio ba tax na daal bu ñu moytuwul moom Souleymane sii di Seck yoon dina ko teg loxo te ay daan yu métte métti mën na dal ci kawam Madiambal Diagne mi yoon tegoon li nga xam ne moom moo di ay daan yu métte métti ci digganteem ak ki nga xam ne moom moo di Souleymane te di ko ci diffamation bi ñu ko doon toppee moom ma Madiambal Diagne nag walbatiku na delloo buum ca booy booy ba ginnaaw bu mu amee autorisation bu ministre de la justice di Malick sàll ngir nag dal di porté waat plainte ki nga xam ne moom moo di Madiambal porté ki nga xam ne moom moo di Souleymane Teliko eh, ci wàllum diffamation ginnaaw bu mu toogee don ko ji li nga xam ne moom moo di wàllum oh, viol ñu des ci li nga xam ne moom moo di askan wi ak jafe-jafe yi ñuy dund euh, dem ca Tambacounda ki nga xam ne moom moo di euh, Mamadou kamara mi ñu fa faatoon dawalkatu Jakarta boobu ñaar ñi ko faatoon yoon teg na leen loxo mu di ñaar ñoo xam ne ñi ngi dëkkee woon ci euh, sali ginnaaw si lañu ko jël nag doon dem ak moom ci yoon wi lañu ne moto bi dafa pan ñu daal di koy faat ci yoon wi sàcc moto ba xaalis ba mu yoroon jàpp nañ leen waaye nag daal dinañuy avoué li nga xam ne moom moo di kirim bi ñu def kenn ka sax dem na ba wax ne euh, rey na ay nit yu bari ci euh, réew mi manifestation bi amoon ca Thiès ginnaaw ñi nga xam ne ñoom ñoo doon naqarlu ñëw ak président Macky Sall ca Thiès. ba tax na euh, ñu daal di opposé wu ci li nga xam ne moom moo di njiitum réewum Sénégal ay jéegoom ca Thiès doon manifesté wu ñu ci ëpp ci ñi doon manifesté wu euh, teg nañu leen loxo am ñu ci jëlee ay gaañu gaañu yu métti ñi nga xam ne teg nañu leen loxo mu di coordonnateur départemental Pastef bu Thiès euh, di Adama Diawara Ndiaga Diaw bu PDS ki nga xam ne moom moo di Ousseynou Fall bu APDR bu jàmbaar ñoom ñett ñëpp ñu ngi ci loxo yoon waaye ñi ci am ay gaañu gaañu yu métti itam yóbbu nañ leen ca l'hôpital ngir euh, faj leen mbokk yi xarit yi lii lañ leen doon dëgtal ci ay xibaar fii la ñu koy ndar képpe di ñaan ngeen di woy suñu programme di leen ñaanal kendaluk jàmm te leen di jox di daje ëllëg incha allah